asalaamaaleykum waaw lu xew TV nuyu nañ leen ñu ngi leen di sant ci liggéey bu rafet bi macha allah ak ku nen di wax xalaatam lu ko metti ak lu ko metti wul wallahi mais man daal vraiment vraiment film bi moom neex na fu neex yem mais daal Jules César daal ne moom niñ koy kiiwee dafa yomb de daal dafa yomb waaw Jules César waaw ay rëccam ak yooyu daal. ak ni muy génnee dafa yomb de waaw dafa yomb daal vraiment te Jeanne daal moom vraiment waru woon a demee noonu daal waaw waru woon a noonu loolu moom lu ñu metti la vraiment waaw. waaw waa Pesco TV waaw maa ngi leen nuyu di leen ziar waa di kontaan ci laay commentaire yi jot yàlla am na yu mu déglu si YouTube naa ci lool waaw man nag sama. wax ci kii dañoo ko Abdel parce que Abdel man dil boobu mu def ba bëgg ba bëgg a rey Jeanne wala ba bëgg ñu menacer Jeanne wala bëgg bëgg lu mu am ci ay dossiers yu mu am si waa tax na ba Jeanne de parce que man pour man Abdel Jeanne de ko daa toppoon Jeanne ndax ndax intérêt bi kii quoi ndax alal bu Jeanne am quoi voilà léegi finalement gis naa. balaa naan di dee sax nu mu nu mu doon nu mu doon xoolee rakkat yi waaw dama xam ni Abdel léegi daa léegi maanaam léegi bëggatul genre léegi maanaam rakkat ji da bëgg ko pour man xam nga ndax xaalis bi la xam nga daa am cofeel ci ci ci rakkat yi pour man la sax daa am cofeel ci rakkat yi après daa am cofeel tamit ci xaalis bi quoi pour man famille boobu xaalis bi donc moo ko intéressé ko pour man sama jàngat. waaw maa ngi eh, waa Lu Xew TV. brigade des femmes euh, épisode trente cinq trente sixième bi euh, dama cee gis benn affaire boo xam ne ni le est temps ñu jële ko ci Sénégal li tax nëpp nëppal bi affaire mbokk affaire yooyu noonu la fee war a jeex takk takk euh, ndax xale bu jigéen bi bu demee ba faatu papaam moo ko rey amuy lu leer nañ ndax li tax mu rey ko mooy li ko naqari depuis muy am fukki at ak ñaar la ko commencé def comme jabar di ko jabaroo di ko jabaroo di ko jabaroo di ko jabaroo ba mu dem ba màgg ba xàmmee ci loolu adapté wu ci loolu dem bay commencé jaay boppam ci mbedd bi salaamaaleykum waa lu xew TV nuyu naa leen bu baax a baax di leen ziar waa man eh, ci mës laa bëggoon wax brigade des femmes ah, voilà donc hmm, dernier épisode bi nii euh, gis nañ ne Jeanne hmm, agressé nañ ko xaw ma day dee xaw ma du dee mais man daal dama yaakaar ni Abdel la Abdel laa ko yaakaar parce que Abdel euh, ñëpp xam nañ ne Abdel amul xaalis Jeanne moo am xaalis Jeanne moo ko yoroon et tout te Jeanne moo doon diriger et tout te man Abdel depuis le début wóoluma ko Abdel man xam naa ne li muy wone ak li mu doon dëgg dëgg dëgg du benn Abdel du nekk euh, le gentil petit mari nii rek comme nii rek di obéir ay ordre Jeanne non yaakaaruma loolu vraiment man dama yaakaar ne Abdel moo ko moo ko moo ko reylu xaw ma nag day dee xaw ma du dee ok ñu ngi leen di remercier. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziara ba yéen nga am jàmm di rafetlu bu baax a baax seen liggéey di jaare auditeurs yi nga xam ne ne ne yëpp ñoo leen di déglu ñu leen siiwul ñu leen siiwul ñëpp daal maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm. loolu dama ko commentaire quoi ci série mars mars ay euh, série la boo xam ne man dama koy sivre quoi euh, épisode un ba tey maa ngi koy suivre bu baax a baax mais li ñuy lépp am gis naa ni lépp am na ba si kooku noonu violé boobu ay daa xawma même loolu noonu noonu la am noonu la amee te am na ñu koy dund am na ñuy dund tamit du gën a métti loolu te seeni waajur ñoo leen koy teg mu doon loo xam ne ki nii ne duñ ko mën a nettali kenn wala mu doon loo xam ne ki ne duñ ko mën a partager ak kenn daal duñ ko mën a wax ak kenn parce que loolu dafa metti loolu ñu ci yéen lu am la euh, kantaan yi nga xam ne ki nii ne nag moom lañ jàppoon si jigéen yi ñu ci xama ñëw fa yéene taxawal seen brigade pour defendre seen bopp même loolu noonu sénégalais yi am na si góor yoo xam ne ki ne ne dañoo tegul jigéen seen place ba nga xam ne ki ne ne lu leen neex lañ leen di def affaire yooyu noonu ñoom loolu lañ jug pour défendre ko mais loolu tamit lu am la lu am solo la série bi daal boo xoolee ni ma ko mën a waxee li ñuy li ñuy joué boo xool lépp dafa nekk réalité lépp dafa am loo am la ñuy joué doon lu série bu neex boo xam ne nekk nii ne man moom nii ma concentré wu nii maa ngi koy doog a euh, def ci série vraiment doon na série bu neex boo xam ne nekk nii ne daal ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal seen liggéey gën a jëm si kanam quoi. je veux être plus maanaam xaritam bi man dama xamul exactement turam bi xawma num tudd léegi kooku moo war a jege tata Umu Kalsum expliqué moom tamit kaawam ni ko moom elle la vécu la même chose kayda parce que moom dafa doon dund ak loolu ak ak tontonam loolu la wax ak nijaayam loolu la wax léegi nag comme ñoom loolu moo taxoon ñu mel ni kuñ bokkatuñ ci dund bi daal genre topp beneen dund banditisme yooyu noonu genre léegi nag comme Aïda dafa yàlla dafa def mu de moom mu jéggi tata Umu Kalsum mu xamante ne ci wàllum fondation bi lay liggéey jéggi ko expliqué ko kaa bi genre après liggéey ak moom pour jëm a bàyyi habitude bee genre rétérool boobu daal di léegi mu nit nit ku baax yee nit ñi sensibiliser la la la jeunesse. ak yaay tamit ñu bàyyi xel bu baax ci seen doom loolu après ñu bàyyi xel bu baax ci mami aussi xaraku ay dabi comme sœur moo ko doon protégé ba décédé ñu bàyyi ci ñu bàyyi ci moom xel jàppale ko waaw ak xaritu ay dabi daal bëggoon naa moom bàyyi euh, jikko boobu noonu daal def nit ku baax man loolu laa ci gis ko waax dëgg la dëgg la thème bi am na solo bu baax baax télé bi ba am na solo yan yan yàlla yàlla yaatal ko bu baax baax baax doone ay télé télé télé télé waaw dëgg la dëgg la dëgg la mës waaw man ci moo ko kaa mës laay wax ñu am na solo solo bu baax baax baax baax kii gannaaw bi ñu wax lay leeral kaa mel ni bëri na Sénégal papa yi di violer seen loolu dañ ko fi war a éviter mu jëlee ko fi ndax loolu moom day na waa trop trop trop trop affaire bi bizarre la daal kenn xamul daal waaw. damay gis ni def si ay moins dix huit ans moins de douze ans teg waaye loolu fi mu toll nii fii Sénégal moom doxu fi xale yi ndaw koy seetaan comme seen comportement cër yi solo bi ni sol am na épisode yoo xam du seen série sax beneen série la boo xam ne ñu ngi wane keroog koy seetaan ak suñu wàkk dama rus ba fi ma toog mënu muy benn série la woon muy affaire yu doy waar te loolu série Sénégal yi war nañoo moytu idole moom loolu gisuma ko si te suma te moo tax benn série bu ma neex la daal neex daal yi daal mu ëpp ne di yeneen yi te nag benn seen benn fans la bu dëkk Bambey ñoo ko Moodu waaw teg tey jii li ngi seen bande annonce yi lañ gisee seen numéro bi jël ko enregistré ko benn yàgg bi waaw tey de ñun bu ñu xool ñu lan mun loo xam ne mooy beneen ñu mooñ si loo xam ne daal leen lañ mën a conseil di bëgg tey jii buñ ko seen yokkit mu gën ñoon ne muy si wàllu benn côté si colin gi quoi ak yenn yoo xam ne pour xale yi koy seetaan ko a ni loo xam ne tey jii man pas sax seen bos bi nii bari gisuma ko ci kaa ndax seen yu bari seetaan naa ko ci passé waaw ci yenn série yi laa ko gis comme ñuy comportement yenn colin ak di wane yenn yenn yoo xam ne waruñu ko wane daal ci biir pour xale yi di ko gis affaire yooyu te. salaamaaleykum yéen waa Lu TV maa leen nuyu baax leen jaare bon en fait que man seen numéro si YouTube bi laa ko jëlee am benn série bu ma doon suivre ñu koy wax Mœurs. bon muy série bu am sens lool vraiment ma leen di encouragé bu baax di leen ñaanal ñu àggale si jàmm ak salaam waaw série bu am solo man depuis ma commencé ba léegi yàgg naa ko siifal euh, siifal ci télé nag ci internet bi rek laa koy seetaan si YouTube bi mais am na solo trop waaw maa leen encouragé bu baax bon di ñëw si commentaire rek bu fekkee ne affaire de brigade bi la man su ma soñoon Marley lañ koy jox quoi. bu fekkee mën ko jox marle tamit ñu jox ko Collé mais man moom marle marle moom laa moom laa jox Fabry quoi parce que bu ñu xoolee groupe bi moom moo ci gën a intelligent quoi ci rôle bi mu waaw moom laa gis mu nekk ci ko xam ne moo ci gën a intelligent waaw ci wàllum euh, ci lépp daal man moom laa gis daal euh, bu fekkee ne tamit deuxième point bi muy. Euh, Crayzane waaw kooku Jules sa laa yaakaar man parce que boo gisee Zane bi mu ubbee bunt bi dafa dafa arriéraat doo dugg si salle de bain bi kon dèjà xam na xam na ko ku nekk xam na ko dugg si quoi waaw fekkoon ne buuru buuru bi la kon du daw kon dina ko laaj waaw mais man Jules César laa jàpp ne moo lay salaamaaleykum wàllu xew tv maa ngi leen di nuyu di leen bëggee waa di kontaan rek ci série bi ndax série moom nii la te théâtre dañ na yeete bu demee dëgg ba amatul yeete jaru ñu naan théâtre euh, série bi moom kontaan nañ ci lool sax am nañ ci mbégte ndax doon na loo xamante ne luy jàppale ñun jigéen ñi la ak loo xamante ne ñu ngi koy dëj suñu biir sëy yi wala ñu koy dëj suñu biir kër yi wala ñu ngi koy dëj ci mbedd loolu yépp série bi taxaw na tey ah di ñu ci jàppale bu baax lépp loo xamante ni amoon na nëpp nëpp tey jii nii série bi taxaw na di di nëpp nëpp boobu yépp di def dëgg te dëgg mooy njëkkee te dëgg mooy mujjee te ñoom ñu ngi jàngale dëgg lu mu metti metti metti metti metti lu mu neex neex neex ñu ngi ñu ngi wane dëgg daal mooy lépp. salaamaaleykum. Lu Xew TV ñu ngi leen di nuyu di bëggee di ziare ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy bëggee Lu Xew TV waaw di wax ne affaire bi am na solo daal kenn ku ne mën na see gis boppam ñun bu dee si côté émission 37 bi bu am tey euh, si côté ana bi ko chanson bi daa mel ne chanson bi moo ko seet si woon mi ngi naan ko dafa mel ne saafara bu jur jàng la quoi man dafa comprendre. ñoom élément bi daa am ñun ci jàppaat wala moom dem gi kidnappé bi ñu ko kidnappé woon moom moo tax muy wax ndaxte moom dane saafara bu jur jàngoro te instant bii nii ci këram la nekk di ko di di ko wax fi la ko sans bi fekk man dama comprendre daa am ñun jàppaat si élément yi wala daal bu fekkee am na benn commentaire bu mu déglu kooku daan ne Ilimane wërta wërta wërta wërta wërta yor kii bi brigade bi dana war a xool ki nga xam ne moom moo ëpp xam mooy euh, bu dee nga xam ne moo ëpp xam-xam mooy ki nga xam ne moom mooy toog bu jaaxle moom moo deen di guider mais boo yorut formation bi yaakaar na mënoo giide kenn te am na affaire brigade yii nii yaakaar naa boo amul boo amul boo amul boo soo amul formation bi yi ci war dëgg-dëgg doo ko ci mën a def man foofu laa gisee beneen bi mooy ah, jabari monsieur le maire yi fi ñu doon waxtaanee mu naan ko yow yow lii moo wax ko monsieur le maire nga si nga si nga si nga si nga am lay métti quoi te sa sa jarbaat. dañ ko violé kon dèjà da ngay xam ne am na loo xam ne famille ñoom ñoo koy nëbbanti seen biir ndax kooku buñ ko bàyyi woon rek jabaru monsieur le maire bi affaire bu du siiw kon ba nuy jàpp pas avec quoi kon dañ koy nës nësal mu wàcc mais tamit foofu noonu ci côté ayda bi mooy que sa doom bu ko yar yarin bul nu la neex lu ko neex sol lu ko neex woo doo fu ko neex toog boo nekkee sa néeg mi ngi fii ñëw di sol solin bu bon goo xam ne kenn xamul solinu lan la kon yooyu sa doom war nga koy mën a tere daal col ko gu bon baaxul bu ko bu ko xeewul woon ci biir kër gi tamit mën na génn mu xeew ko ci mbedd bi kon sa doom war nga lijjanti lu muy sol ak lu mu du sol beneen bi mooy ci côté Jeanne ak Jules César Jules dane Jean moom moo ko yor bi mu nekkee xale ba léegi moom moo ko yor Jean bin ko Jean biñ ko jàppee bin ko yóbboo police di ko enquête dane man Jules man maa ko yor waaye yorewu ko rey mais yarin bi mu ko yaree moo tax muy rey ndax am na fit ndax dañ ne ki la jikko bu mu def ci yow rek mooy mooy nekk ci yow. ndax Jean boo xoolee bandi la Jules ñemewul woon Jean sax toxi doona wu mu def Jean Jean toxi doona wu lay yebal pour mu mën ko cee génnee otoom bi mu mbëkkee nuur Jules la jox oto bi pour mu mën koo génnee pour mu mën cee set moom la yoon ci hôpital ba pour mu xool ko ba xam mi ngi dund wala dundul tey Jules César noonu la mën a def pour Jeanne mucc ci mooy rey ko kon nit ki soo koy défendre da ngay xam ci li nga koy défendre mooy que am na ñoo xam ne yar bi ñu yar yar bi ñu yar baaxul Jeanne yar bi mu yar Jules César baaxul. ndax moom moo ko may fit woowu muy tax muy def loolu lépp voilà gars yi laa am comme commentaire. asalaamaaleykum wa rahmatulah lu xew TV ziar naa leen bu baax a baax di leen béyee nag man nag si théâtre boobu laay wax la Mœurs de la Brigade boobu noonu laay sama théâtre man si théâtre yëpp man boobu mooy sama si boobu laay seetaan waaw maa ngi bëggee bu baax a baax a baax surtout Ana. ak waa Mor ñëpp moom dama leen a bëgg rek te yàlla tax bañ commencé seen épisode bi un ba léegi wax dëgg yàlla maa ngi leen di seetaan amuma télé waaye connexion ñoo may tax may jënd connexion orange bu mini bi ma koy téléchargé rek après bu am ra ma téléchargé ko seetaan ko waaw waaye lu xew TV maa ngi seetaan seen épisode dix bi gars yi ngi si commentaire waaw maa ngi koy seetaan gars yi ngi si commentaire nag. waaw benn maa ngi ci dëkk benn jigéen mu ne ak dee yi bëri na ma ne ko wax nga dëgg de dee yi mu ngi bëgg bari sax de xam nuur dee na fii ak ayda ak saan bu dee day bëgg bari de waaw surtout ayda bi man dee bi noonu la ma méttee waaw dama ko faraloon dëgg dëgg waaw ak sil César léeg-léeg damay sil César dama koy bañ bañ loo xamante ni ay <laughs> damay xam ne théâtre bi moo laaj waaw maa ngi siyaare ñëpp daal waaw. yéen waa yéen waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu leen bëggat di leen siyaar rek dañ leen wax ne mm, li ma bëgg a waxal ci li xew xew-xew yi jamono ji la di eh, Zery Meuve Sel César eh, la di li muy dafa doon lu am. c'est que fii Touba ñu ngi fi wax rek lu yàggut mel noonu fii Touba démb rek dañ fekk ñaari xale ci seen i kii ñu ray leen ci seen i néeg waajur ñu rendi leen affaire bu yéeme c'est que da di andi euh, da kii criminel yi ci boobu dañ leen a war di téye jàpp leen c'est que bu ñu defoon ku ray ko def ko un la bàyyi sax yenn sécurité yu tuuti sécurité ak force lañu war a defal bu a giir dund lii moo doon ci xalaat ci li li xew ci nga xam ne moom la criminels yi di doxee ci jamono jii c'est affaire bi mu xoolee ba xool yomb nit ñi dañuy dem ba foog ne ñu ngi ci jàmm nga dégg benn criminel fa feneen ñëw ak i ñaaw téefam c'est que zine nag moom mm, grand kii la quoi c'est que roulam bi muy joué def nii bi ñu jur dafa am c'est te li mu ne wax du wéeru ndax rek dañuy wax naan fii Tuubaa dañu fi rey ñaari xale yoo am ne leen fekk ñu tëdd ñu rendi leen ko ci seen kaw lali waajur tegul fenn ni moom war nañ ci mën a jóg quoi bismillahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim waa waa lu xew TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fi yàggal seen taxawaay yéen ñëpp incha allah bi jaaxi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñëw di ko ñaanal waa Sénégal di ko ñaanal waa Afrique di ko ñaanal àddina bi yëpp si barke yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw man fi ma bëggoon wax rek mooy si série mœurs bi ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk di ko liggéey ñi nga xam ne ñoo nekk backstage ñi nga xam ne ñoo koy joué aussi ak euh, waa senegal yëpp di leen nuyu di leen ziaral di leen ñaanal yàlla ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp di ñaanal ñëpp gudd fan ak wër ak wër la fekkee tal jëriñu mu jig ñu doon li gën ci ñun ñu ngi wax waa mars ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñun fii lañ nekk xaw na sori tuuti waaye dañ daan dem di jënd film nigérien yi ndax ñun amuñu dara fii amuñ dara lu ñuy épanouir donc à part télé yi ngay seetaan télé yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi su ko weesoo dootoo amante leneen loo def mais kii yi nekk Sénégal yëpp ay dina ma neex ak yi nekk Sénégal yëpp idol yëpp ak euh, euh, Pod et Marichou yëpp vraiment waa Sénégal li ngeen li ngeen di def yàlla na ci yàlla taxaw dimbali leen may leen moyen bi ngeen koy defee te dimbali ñi nga xam te ñoo leen koy liggéey te yàlla may leen gudd fan ak wer ak wér la fekkee tal jëriñ mu jik leen dool li kër ci ñun ak euh, yoonu siraat kal mustaqiim incha allah wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan trop waaye tamit ñi ngi ñaanal auditeurs yi parce que euh, am nañu tey ak dal seen wax itam rafet na ñu ngi leen ñaanal ñoom tamit parce que dañ ciy participer te participation bi yaakaar naa tamit waa mars ñu ngi déglu bu baax parce que gis naa maa ngi déglu bu baax émission bi di déglu lu xew TV aussi di déglu seen émission yëpp vraiment maa ngi gis Sénégal daal kàcce gaalaamam yàlla ñu yàlla may ñu continuer lu ñuy def te yàlla saxal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que wax dëgg yàlla kontaan nañ li daan am bu njëkk ba amatul te ñoom li xew rek lañu ñu yàlla na yàlla defal leen tawféex defal ko waa Euh, lu xew TV defal ko waa Mars defal ko bépp nit bu taxaw Sénégal muy woykat yaa xam ko mënti doon yàlla defal leen jàmm ci seeni liggéey mu jëm kanam te mu ànd ak yoonu siraatal mustaqiim incha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ngeen xam ne ñu ngi leen di supporter aussi bu baax nekk leen ci jàmm bu baax waa Mars big up à vous kaw ci kanam incha allah.